auzu billahi mina seytaani rajiim bismillaahi maa ngi doon di sant yàlla kan? bu baax di julli ci yonent bi di leen nuyu yéen ñëpp seen tur ak seen sant di leen ñaan di ngeen initiative bi ngeen jël di kan rendre hommage Malick yaa ngeen àggale seen sago yal na yàlla taxaw jàppale Malick nag sama doom la woon man maa yaayam mu nekkoon doom di ma bëggoon di ma faale woon di ma yërëm woon ñëpp daan nañ wax ne Malick yew sa yaay kenn mooy sa xarit bu daa liggéey ba wàcce mu ngi si moom ne tëdd seetaan jog dem entraînement ñëw tëddi Malick daal maa ngi koy ñaanal ko mu tëdd yàlla na ko gënal fi mu jóge xale bu baaxoon la yërëmoon na ma bëggul ma xiif bëggul ma mar bëggul ma rafle temps bu wàccee nag am na law ma indiwaaleel ne ma lekk la temps bu wàccee même papaam sa dafa daa waxe kii yaayam mooy xaritam lu nekk moom loo xam ne sax du ko wax ak dina ko wax ak man man daal xam naa dama moom dëgg la yàlla moom a ko gën a soxla jël na ko waaye ma trop manqué na ma te ñëpp xam nañ ko sax xam na ne ba mu gaañoo ba léegi génnuma sa dem fenn parce que Malick daxa nekkoon kaa xam ne daxa nekkoon sama xol xale yi ñi fi nekk ay magam bi mu nga pa Italie keneen ki ku jigéen ki ma am mu nga fële di say mbaaw moom moo nekkoon si ma wéttal nekk si mag wet bëgg ma ba bëgg dee bëggul ma jàmbat dara ñëpp nag ñoo ko xamoon ba weeru koor jotee dala ñëw te xaalis bi na ma ma ne ko joxal ñëpp seen sukkari ko ka mu jukki yoon ne jox la kër gi ñëpp ñëpp daal ñu ko gërëm ñëpp ñëpp xaalisam daal boole ko woon dara alalam ay yërëm yi saye dax daa génn yëre yi teg ka nekk mun na la kaay ya góor yi dañoo sol ba léegi ay yërëm dañ koy sol ma nga di ko ñaanal faamu tëdd yàlla na ko gënal faamu jóge yàlla na àggaleeg ndawam nga sa àjjana yi gën a kawe ku baaxoon la ku baaxoon la ay xaritam yi mu fi bàyyi nii sax bàyyi ñu ma ba tey ka nekk dama seet seen liggéey ñu mu diggale woon ak yow ñoom ñëpp dañ ma seet seet toujours mu la ñuy xam ne te bi mu gaañoo rek la ma leen soog a xam ñi mu diggale loon si àddina waaye ñëpp kenn bàyyeetu ma ñëpp dañoo ñëw di ma seet Malick daal moom Malick gëm ñëpp la woon baaxoon na amoon na yërmande xale ya ndaw yi ba léegi tey ji suba ñu ngi dugg si moom ne ñoom ñu ay fotaam yi ka ne ka ma maam Malick yal na ko yàlla yóbbu àjjana ma ne toujours ñu ngi wax si waxam bés bi ngeen jël sax nekk bés baa xam ne moo la woon bés anniversaire am bés bi moo juddoo le 28 janvier bi mu laa gaañoo daf ko fonkoon ba bés bi mu gaañoo ba léegi toujours le 28 ñëpp dañ ka dugal famille bépp dañoo dugal ay fotaam famille bitam kontaan nañ torop si li ngeen jël initiative bi ba soobee yàlla yàlla nañ si bakken yóbbu rek yàlla nañ fekk bis bi si jàmm ak lépp lu si waa li si ba soobee yàlla dinañ ko def famille bi taxaw si ñu ngi santa sant bu baax di leen